kon voilà. waaw kon wax ñu tur bi voilà. Maysa Diop. voilà euh, fii ñu ne mooy fan. Kawsara Fall. station mm-hmm. Touba Darou Salaam. waaw lan mooy mm. seen tawat yéen ñi eh, sante yàlla julli ci yonent bi di leen sant ci seen taxawaay di sant ñi dox mbir mi ba am noonu nag danoo ñëw dëkk ci koñ bi am fi ay jafe-jafe yoo xam ne nii. metti na lool lool lool lool lool fii kenn ñimeetu fee génn guddi agresseurs yi sonal nanu fi ku génn bu huit heures jot boo jigéen ñimewul a génn fii ni damay dem fee jëndi fonde bërki démb démb doo nga lan fi agressé benn chauffeur fii neuf heures et demi nun nag nekk nañ fi ci jafe-jafe boo xam ne amuñu courant amuñu ndox amuñu dara kenn nu ngootul ñimeetul a génn nun borom kër yi ñimeetu noo ubbi suñuy buntu kër ndax yaakaar nga ni boo boo fi boo ko ubbee bu huit heures jotee gaa yi dugg si ci sa biir kër agressé la ñuy ñaan nag képp ku nu mën a dimbali te yàlla tax jàppale noonu ci suñu li jafe-jafe ñu ne nga dimbali nu te yàlla tax ñoo ngi koy jaay jooy ñëpp bawuñu kenn kuy dimbali te yàlla tax daal tàllal na la sa luy loxo nga dimbali ñu te yàlla tax. lii ñàkk am lumière. courant amuñu courant amuñu dara li fi jot a leer a kus népp panneau solaire la. mais seen nañu ay porte fële si kanam porte yi ama courant bi courant ñëwul. agsiwul agsiwul ñoo ngi laaj mais courant bi ba nag ne dara ñëwul. noo ngi def suñuy démarche saka lijjanti nag ñu ngi nii am nañ ku nu dimbali sax ba joxoon nu dara mais nag bu nu keneen dimbali waatoo ñu jéem a def suñuy moyen ba mën a am lu sunu doom yi xoole ak waa kër gi fi ne xam fu ñuy teg seeni i tànk kuy dox guddi yaa ngi xalaat dox jaan màtt la wala nga xalaat leneen mbaa nga xalaat ko la dab doxee la ginnaaw agressé la ñuy ñaan képp ku ñu mën a dimbali te yàlla tax tàllal na suñu loxo. ndox bi fu ngeen jëlee ndox. Ah, rooti rooti dong la ñuy am moyen ay oto dem di wuti ndox mais jigéen ñi moom mënuñu koo yaru ndax boo bëggee dox ñaari ñaari ñaari dem soo am so ndox boo dikkee root doo sangu lii daal la ñu nekkee yéen ñi ci biir Thiès ci biir Thiès génnuñu biir Thiès yéen nag lañu yàlla def na ñëw ngeen ci nun ñu ngi leen di tàllal suñuy loxo ngeen jàppale ñu lu ngeen lu mën a jàppale te yàlla tax wasalaam Baye Diop bisimilah. Euh, man maa ngi tudd ab du Diop ñu gën maa xam ci Baye Diop. dëkk euh, maa ngi dëkk fii ci kaw Fall station ñu duppee ko Touba Darou Salaam. waaw maanaam euh, suñuy jooytu benn rek la parce que ñun dañu amul ndox amuñu courant. bu guddee am nañ problème suñ xale yi amuñu lumière buñ mën a jàngee ñi nga xaw a am tuuti doole wut nañ panneau solaire ñu ko amul daanaka ci lëndëm gi rek la ñuy dëkk gis nga quartier bi ni mu lëndëmee gis nga garab yi ni wër yëpp maanaam fii daal dëkk nañ fi mais dëkkin wu méttee méttee lañ fi dëkk te depuis bi fi dëkkee man def naa fi lu ëpp 5 ans ñu ngi fi du dund ay jafe-jafe yu métti mm-hmm. ndoxum teen ci la ñuy ndoxu bu buñ ko amee dañ ko jënd ay sancaan la waaw mooy sancaan yi nga xam ne si moo dolli ko ci kaw Sarafaal mhm. léegi ñu tuddee ko nag Touba Daaru Salaam waaw waaw gis nga kanaal bi mi ngi fii bu nawetee sax lay gën a doy waar parce que boo génnee fenn jakarta boo ni indi ma fii danaan dan may agressé nangu sama jakarta bu dee taxi taxi boo wax mun la 1000 francs te balaa agsi da ngay xuloog moom jigéen ñi toujours dañ koy dund toujours toujours dañ koy dund jafe-jafe yu métti la ñuy dund ndax amuñu courant amuñu ndox amuñu dara fii dafa lëndëm ñu ngi sonn suñu doom yi ñu ngi sonn ñu ngi dund li nga xam ñu ngi ci biir Thiès ci biir Thiès la nekk courant baa ngi ñu wër ñu ñu ngi ci diggante euh, euh, Kawsara ak Poñel ak Thiapon courant bi nii la ñu wëree bu doon guddi da ngay gis courant bi war ñu ñu ñu nekk ci benn cercle boo xam ne courant baa ngi ñu wër côté bu nekk mm-hmm. te mënuñu fexe ba am ndox mënuñu fexe ba am courant fi ngeen dëkk lotissement maanaam euh, kii la lotissement bi xam naa ne des na normal parce que mais xam naa ne daal ay kii la acte de vente daal lan ñu jaay kër yi mm-hmm. mais dañ ñu woon mbedd yëpp normal na mi ngi ci ay kayit loolu ñu wax bi ñuy jënd mm-hmm. mais daal xam naa ne ñu ngi dund jafe-jafe yu métte métte métte ca wax dëgg yàlla ku ñu ci dimbali ñu jël. maanaam daal politiciens yi fi jot a ñëw wax nañ leen ko. dem na noon ci si rajo wax leen ko ñu ci baree baree bari dem nañ ci ñoom wax leen ko. ndax am ñu ci def ay jéego laa wax. waaw waaw maanaam ñun daal ñooy jóg di dem ci ñoom di leen di leen nemmeeku Sarr la nag Sarr la moom ñëw na may na nu ñetti poto parce que courant bi mi ngi yemoon fële. cinq waaw dañu simle ñaar yi. Eh, samp benn kon boo ko gisee comme taxawaayu ñetti poto rek lay taxaw parce que commencement bi dafa simil cinq cinq poto waaw waaw cinq poto la may mooy Charles six ne newoon na tam moom ci boppam newoon na tam dina def ay pexe ba courant bi dugg si bu baax a baax baax bin mujjee dem ci moom loolu la nu wax wax dëgg yàlla lim ñu defal it xeebuñu ko ndax moom rek moo ci wax jëf ko mais ñeneen ñëpp dañuy dikk wax rek mais li ñu wax duñ ñu defal tous bu ndikkee wax bu demee ëf gisatun dara hmm. boobu ba léegi nag ñu ngi dund coono yu méttee métti suñ jigéen ñi sonn nan seen loxo yi jukki nanoo jukki ba mu wow koŋ. su mës ngeen xalaat dem waxtaan maire ville bi parce que aussi xam ngeen poto. Hmm. pour extension pour extension mairie ville. dañ ko dénk est ce que mës ngeen si dem waxtaan ak Talla Sylla. Talla Sylla ay jamono defoon nan benn doxum ñaxtu. Hmm. bam yabaloon ñi mu yabaloon dañu woon poto yi ñi ngi taxaw. danañ ko ñëw samp ko bala élection yi la waxoon boobu ba léegi gisuñu leen dégguñu leen euh, maanaam ñu ngi koy fàttali Talla Sylla mu dimbali ñu parce que ñun waa Kawsara Fall station sonn nañ trop ñu di ko tudde Touba Darou Salaam ñu ngi ci lëndëm gu méttee méttee méttee suñu doom yi sonn nañ suñu jigéen ñi sonn nañ mhm. waaw ku nu dimbali woon daal waaw waaw ci zone Thiès Nord la bokk waaw ci zone Thiès Nord la bokk waaw maire maire zone Nord waaw Thiès Nord ci la bokk waaw bu élection yi bu jub see ñoom ñëpp dañuy daw dikk mais bu xasee passé duñ gis kenn. toujours ci leen dëkk ñi ngi wax guddi ñi ngi wax bëccëg dañu sol suñu daal sax jël taxi di dem ci ñoom mais di leen jooytu parce que bëgg nañ ku ñu dimbali parce que sonn nañ fii munoo am galaas munoo bu tabaski jotee boo rey sa xar da ngay profitoo lekk ko sinon day yàqu parce que amul fenn foo ko denc suñ xale yaa ngi nii ndaare la ñuy jël mënuñoo am benn moyen bu baax parce que amuñu fu ñuy jàngee balaa 9 nga tëdd wala 10h kon vraiment danoo sonn trop jigéen ñaa ngi nii li may wax nii ay caaxaan taxul lu leer nañ laay wax waaw lu leer ñi laay wax waaw nan ñu dimbali bu baax a baax a baax Siré Dia nag moom wax dëgg yàlla jàpp na ci bu baax. parce que bi ñu demee ko newoon na dana fi dugal ay poto parce que booba jamono yi élection yi la dafa jege si woon mu may ñu xaalis ci leen jënd lii waaw 300000 moo ñu may xaalis léegi ginaaw mënuñu cee am poto ci xaalis bi mënuñu koo denc ñun nañ ci jéem a jënd ay sees di ko luye ndax bu dolli ko ñu jéem a se ñun borom kër ñu fi nekk dolli ko pour wut ay poto pour ñu mën a am courant. jërëjëf waa kay jërëjëf kan waaw taxaw ndey. kon nag asalaamaaleykum mbokk yi. ñoo ngi nuyoo Babacar. ñu Sofia Ñang la waaw man maay nuyu di sant. léegi yow wax nga ci jafe-jafe jigéen ñi ak kër ga xam nga comme góor ñi wax nañu problème yi. waaw léegi yéen jigéen ñi nan ngeen ko dundee ak lan kàddu yi ngeen ñaax kilifa yi. waaw kàddu yi benn la rek lu suñ kilifa yi wax rek moo fi ne man damaa ñëw fekk leen si koñ bi ah ba ma leen fekkee tam si koñ bi nii rek laa leen fekkee muy la dëgg waaw waaw Touba Salaam Kaw Sara Fall ñu tox si fi nag ñëw ah di dundul lu métti rek comme loolu suñ kilifa yi wax rek ñun dañuy jooytu rek lan courant ak ndox jooytu wuñ dara ndax ñun dañoo sonn ñun dañuy génn di dem waaye suñuy ñëw sa suñu xet fii du dal état day dem fanaan fa boobu set ndeg bañ a ñëw si koñ bi ndax lëndëm na suñu doom yi jàngatuñu rood neen ba sonn boole ko ñàkk courant bi du ndox du courant du dara si jaboot dafa métti te sonn neen lool. dem neen Talla Sylla gisaguñu ko de waaye fu ñu war a dem yëpp si politiciens yi dem neen fa ñun dem neen kër Maguette sey dem neen kër Sira Dia te du ko jooytu toujours buñ koy jooytu campagne bi des na ñetti fan pour élection yi am bañ yeggee tam war nañu fekkoon nañ ko wax sa teel moom dinañ mën a dinañ mën a dimbale ñaanal ñu ñu nekk sa kaw pour ñu may ñu ay poto mu trois yëkkati 300000 mayuñu ko ñu ñëw fi denc ko fi lu mat daanaka élection yi ba léegi. pour wul lu ñu lu ñu cotisé amuñu ko ndey laan li ba dégg nga amuñu ko léegi ñuy toog di toog di toog ba mu yàgg si leen doog a tas suñu xaalis bi jënd si ay sees yi ne dañ koy luye pour ëllëgee ñu mën am lu ñu yokk def si courant bi pour courant bi jafe-jafe yi jafe-jafe jigéen ñi euh, damay gis ni bari na jigéen ñoo xam ni ñi euh, ci seen euh, maanaam activité dañuy fajaru di teel a xëy te ñuy wax insécurité fii loolu nan ngeen koy dundee. waaw ñoo ngi koy dund ndax maire bi ñu taxawal nii day jaay balaay dem day naaj ndax ñemewut a génn ñun ñi balaa ñuy dem marché dañuy bàyyi ba 10 heures bëgg a jot ñu doog a génn ndax dañoo ñemewul ndax fii lu foofu jaar rek àll ñax maa ngi ni ngeen jàkkaarloog moom kenn yaa nga ne soo leen wiri woon nii da nga gis seen yëpp teen yi amul benn ndox dinañ toog sa problème mu sangu du ñu ko def suñu wër bii ñu tilimee nii ñàkk ndox la te ñun dañoo bëgg ndox dañuy sangu dañuy sañse waaye comme ndox doo sangu dañoo sonn nag sonn neen tàyyi neen ku ñu si dimbale nag ngir yàlla ak yonent bi ñu jël gox bi nag amuñu nii de ay borom kër fi ne ay jeega fi ne te ku ñu woo si dañuy jox. waaw gis nañu am na yenn kër yu nekk chantier seen borom peut-être doole yemul pareegul est yokk ñàkk kaaraange bi. waaw waaw na kër yoo xam ne sax muuruñ leen kër yi pare yu parewul moo fa ëpp kër kër yu ñetti kër lay doon baa ñeent gis les yëpp muuruñu ko lépp ñàkk kaaraange la te suñu amoon courant nga gis bâtiment yi nga gis nii yëpp ñu commencé fondement ñëpp ñëw koo wax mu ne la amul ko courant du ñëw amul ndox ñëwul du ma ñëw ñun ñi ñàkk pexe nag xam ne amul fu ñu benn néeg ak suñu doom ñu dund ko lu mat fukki at di am fukki doom baa fukki doom ak benn ak suñu borom kër ñun suñu sëy sax neexatul léegi sonn ku ñu dimbali nag si courant ñu jël. léegi ñoom guddi gi bu fekkente ni mbir yi daf leen sonn ba duñu am ay jafe-jafe. ah dina am jafe-jafe kay ndax suñu mbokk mi barki dem mu ñu agressé fii bañ koy dóor bañu koy dóor kii barki dem këram toj nañ ko waaw barki dem borom kër gee oto bee ngeen gis mu oto bu ñuul bu taxaw fa solo fa duggoon léegi da ngeen yërëm waaj ma nga tëdd jam am moo woon jox doomam ñu dépasse amu sax bu mu lekk ma nga ne jabaram bi da woon jaay màdd sa école ba mm. waaye ma nga ne fan yëpp jaayut ma nga ne problème lu lekk sax da koy ndax moom moo ndaw dañ ko agressé si yoonu poñal bi daggal loxo yi dañ ko noonu la rey jaas yi lañ ko noonu la waaw a jaar. ah est wax léegi directeur général Senelec bu bees wala président Macky Sall wala ministre bi yor courant. waaw ak ndox jaarul ngeen tàllal leen carte. waaw ñoom leen tàllal carte. Mhm. léegi président Macky Sall ñoo koy tàllal suñu loxo ak képp ku fi teg dëkk bi. te nga mën ñoo dimbale ñoo ngi ñaan si jëmm Rasulullaay ngeen dimbale ñu may ñu courant may ñu ndox ñun courant sax suñ ko amoon ndox suñ ko amoon ñàkk a sangu baax na waaye neen am courant rek bu ñu taal suñu doom yi mën a jàng ay xale yi man jàng nag lay nekkal man sama doom yi yëpp gisuma ku si jël ku si ñëw ndaare ngay jël ñee ngi def bakk ñee ngi def waaye amuñ dara nag ñàkk courant buñ jàngee jàng kal leen nag ku nekk am na cadre la man mii man mii seen ndey maa jàng waaye doom ñu ma am bu ma am rek jàng cadre la soo jël paie ba ma dëkk taax kaw paie nga jël mbaa nga premier nga jël mbaa nga jël deuxième léegi ba ma ñëwee fii ba léegi seen note yëpp benn baaxu si léegi ñàkk luñ jànge ne ñu dimbale si ngir yàlla ak yonent bi taala si la muy maire dëkk beeg euh, keneen ki Lamine Diallo su ko déggee te gis ko nañu dimbale ñun waxuñ wax bu ñaaw waxuñ wax bu ñagas dañuy ñaan ndeg yàlla ak yonent bi waaw dañuy ñaan rek ñun ko ñu dimbale ngir yàlla te suñ ko weddee tamit neen ñëw ñu dugale suñ gox bi ak suñ magasin bee xam ne jaan yi barki démb sama gannaaw man moo juddoo ba léegi mosuma gis jaan waaye ba jaan bi tëbee nanoon naa delluwaat sama benn néeg bee nanguñu ko di geer kaba ko abaloon mu génn fa dëgg jaan waaw lëndëm gi rek koy di organisé fii si quartier bi pour au moins wàllu kaaraange gi donte police moo ko war a saytu mais pour ngeen euh, jéem a jël seen matuwaay ah waaw organisé woon ngeen fii waaw déedéet organisé wuñ dara ñun waaw ñun naajee yeewu daal teel tëdd su fajaree ñu toog ba 10 heures ñu dem marché jaaykat yi toog ba 10 euh, heures ñu dem marché balaa ñuy ñëw midi suñu dugg yëpp di tardé soo see nga ngeen ñëw fekk ñu pareeguñu añ naaje de marché tax nag nekk ca loolu morom dëkk ba kenn defatu nu nawle waaw danoo dox a dox ba suñu tànkee xam waaw ma ñëw ma oh, ñëw madame Ngom man bi may dëkk fii am na six ans ak léegi si dama daan yar ay ginaar di yar ay kanaare defar sama kër ba mu baax ñu bobbati ko ba mbub mu ma sol amuma ko fii bobbati mooy lan sàcc ko yóbbu kinaare ya yóbbu ginaar ya yóbbu télé ba yëre ya sama jasdeere jëkkër yóbbu ko gan gu ma am léegi bu ma ne ko dëkk mënu ma mën mënatu maa ñëw seet si la maa ngi ni dama fee tumuraanke xale yu jigéen yii rek man xale yi laa àndal xale yi laa yërëm école yi ni jàngee fi mu ne dañuy bokkate dañuy tardé boo xoolee seen composition en retard rek lañ leen bindal ñeneen ñi nag bu timis jotee ñu bokkatu ndaxte ay sonde la ñuy taal mu ànd ak kaye ba mu nii na nee na neen bay bëgg a dee sonn nanu ñu jooy nañu ba sonn fépp fu nu xam nag dem nañu fa waaw maa la ko wax fi mu ne nuyu mu rucci gaaw rucci loxoom te ay jigéen lañ te kenn gënuñu nag ah ñun dañoo seetaan tàccoo nanoo tàccoo tàcc bay bëgg a dee politicien bu nu ñëw yër ñu ñuy dundee yaakaar ba a ah, pourtant de Thiès lañ juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu bokk a ah, ñoo ngi voté ah, waaw ñoo ngi voté waaw ñun daal ñu ngi a ma ah, ah, kii président Macky Sall madame Faye Sall jigéen la wut a seetaan ay nawleem du dund lii ñun ñoo ngi nii fi mu ne nii da gis jigéen joo xam ne day ëmb sax avorté ndax paani ndox yi muy jukki ak yi muy yenu yooyu yëpp da nga koy gis fii man mii dal na ma dal sama moroom ah ñoo ngi dund lu tar waaw bu di jotee dañuy sonn ba tëluñoo toppatoo suñu borom kër yi léegi yëratuma dara dara dara dara yëratuma ko sàcc nañu lépp hmm. waaw hmm. ñoo ngi daal wootee fu képp koo xam ne am nga xolub yërmande xam ne jigéen moo la jur jigéen sa jigéen la sa lépp la na ci def sa loxo dimbali nu ñu am ay poto ak ndox ñun sonn nanu ah, waaw kan fii ay xel barki démb dong ab jeeg lanu dàqe fee bam ni yomb ci bint kiyam ba nu génnee di ko yër lëndëm gi duñ ko gis mu dem xale yaa ngi ni yónneetunu suñu doom yi waaw bu ko du jotoo dañuy banku ku am loo lekk lekk ko ci bëccëg bi boo ko amul nga tëdd nelaw waaw ndax sàcc gi wasalaam lu gàtt te neex waaw <laughs> ah, yow mënoo fi wax lu ñu saf la sarab moo mënta njëkk a wax. Ah, ah, waaw ah, léegi waa Thiès. ñu ngi nuyu mbokk Thiès yëpp man la day sekk euh, buur géwal dëkk dëkk fii Thiès euh, Kawsara station. Touba Daaru Salaam. xanaa nag li sama mbokk yi wax rek muy Ramawan ak Sofia ak ñoom Baye Diop ñii loolu li ñu wax rek man loolu laay dëggal sonn nañu tonton Babacar ñun ay artistes lañu. yoo xamante ni nii dañuy dem fépp ci réew mi man ñimeetumaa sax indi sama nit ku baax fii parce que fii macha allah amul ndox amul courant ku ne ma dinaa la seet si sax ma ni ko négal ndax tubarkàlla nag jaaxle nanu ñun dañuy dem ci programme yi ba xaaju guddi du ñu am taxi bu nu indi fi dañuy wàcc sunu jëkkër yi di toltolaan ndax nag mënuñoo bañ a dem parce que sunu métier la yàlla moo ñu ko séddee man ak Sofia mii ñoo yem dañuy ànd programme ba xaaju guddi taxi bu nu jël dañuy xeex ak moom di poñanteeg moom ba keroog ñuy egsi mbaa ñu wàcce ñu ci yoon ba ay ay agresseur dina dàq fii daal sonn nanu sonn nanu sonn nanu meeru Thiès war nañoo gestu meeru zone nord war nañoo gestu parce que tamit ku woote ñu jóg seetaanuñu kenn sunu école bii muy école Serif Assane Fall ñun ñooy taxaw jouru vote dëggal suñu bopp woote te nag bu dara amul lu dul ñun suñu soxla kenn duñu ko fajal te politicien bu ne dikk na fii ci koñ bii nga taxaw nii teg fi sa tànk am na koo xam ne bi mu fiy ñëw oto Senelec bi la yéeg dikk ñëpp di dunda yaakaar ah, bu ñu dikkee natt tey bu suba ñu ne poto yaa ngi ñëw ba ginnaaw subaa ñu ne nangam kero bi nu wootee fi dañuy grève monsieur le maire ñi muy yónni bi ñu dikkee dañ ne poto yi mi ngi tege samedi la ñu koy indi samedi samedi ñun ñëpp nga toog di xaar gisuñu dara gisuñu dara hmm. bu weesoo sunu weñ yi ñuy deqatal guddi gisuñu dara fii tubarkàlla teel a tëdd naajee yeewoo fi am ndax boo guddee tëdd ñu kar la boo teelee yeewu ñu kar la ñun daal ñoo ngi nii di dunda yaakaar man nag moom dematuma fenn fi mu ne géer. est-ce police wala gendarmerie di fi ñëw sax euh, parfois ngeen yaakaar seen a dal. police wala nga gis leen fële ca ba ndax par yenn saay xëy na dara am Abdou borom kër gi boo duggee nga xool ko. mi ngi ne ñu yàq yaxet barki démb la génn hôpital régional te fii lañ ko caressé angle bi kenn ñimeetu la génn man fi ne bu noddee seen kër laay jënd li may jënd lépp te may dugg si ci koñ bi damay daw bu ma dikkee tëju naa ñëpp daal jaaxle nanu ku ñu dimbali ñu jël ñoo ngi nii sonn nañu waaw. man Abdou laa tudd Abdourahmane dëkk fii ci yoonu poñel bi. waaw waaw fii lan ma agressé quoi. waaw man chauffeur taximan laa. waaw waa ji daal ni ma taxawee ni dafa jékki-jékki ni kàccit port bi. bi ma ko xoolee mu ñuul kukk nii quoi mais ku waaju njool la léegi nag jaasi la ma génneel quoi ma xam ni bu ma jénguwul damay dee quoi. waaw léegi nag ci jaas ji laa ngëpp bi ma ko dóoree nag dafa rocc jaas ji loolu moo ma gàññi quoi mais coruma quoi kii bu ma xaaroon cor damay rey quoi wax bi mu béemante bi waxuma dara dafa ubbi bunt bi rek taxaw xàcc jaaseem lii mooy génn maray la rek waaw jël li nga yor. kan la waaw mu ngi xewee fii ci pont poñel bi ay dix heures ah. loolu la yaa ko loolu dimanche la yabuma ko sax dama romb foofu noonu di dem presque sama kër ak ni ma jege. Mhm. bi ma ñëwee foofu dama taxaw am lu may defar nii rek jékki-jékki waaj ubbi porte bi. Mhm. waaw génneel ma jaas ju weex tàll ma xool ko mu njool nii ci kaw. xam nga ñuul kukk. waaw léegi nag bi ma génneelee jaas bi non trois personnes la léegi bi ma génneelee jaas ji xàcc ma ko ma xam ne bu may génn moom royal siw ma dara damay rey quoi bi ma génnee man ci jaas ji ci boppam laa ngëpp bi ma ko ngëbee bi ma ko dóoree nag ci la rocc ci jaas ji léegi keneen ki tourné di ma ñëw pour dab ma pour kott ma léegi ma tourné bi ma ko këddee keneen ki dem ci oto bi di wiiri di am lu muy xool foofu mais portable rek la fa jël quoi. nga daw waaw non ñoom ñoo daw xamatuma nu may def ma taal sama oto dem. waaw boo fekk na ma presque wàcc naa sax ah parce que dix heures boobu maa ngi génn sama kër ba jox samay xale reer dem ci bitig boobu bay wàññeeku. Ah, waaw yoroon naa xaalis mais xaalis bi sama poos la nekk comme. finaalu ñu ma ba tax ba ta ba ba comme dañoo daw xam nga du ñu mën a jël li nga yor quoi. porte nga plainte. waaw defoon naa plainte police ngent uh-huh. waaw waaw mais nan ngeen di duggee dundee ñàkk kaaraange bi fii si. waaw mais nu ñu koy dundee mooy lëndëm gi rek lëndëm gi dong la loolu dong la du leneen. waaw lëndëm gi la kilifa yi waa police ak kilifa yi ngànk dëkk bi. waaw mais xam nga affaire yi moom wax rek nga mën wax rek nga mën mënoo leneen wax rek nga ko quoi. ndax mhm. boobu rek yoon rek la la loolu dal wala am na yeneen yoon yow la kii wala keneen. waaw waaw. yow wala keneen wala ci bërëb bi maanaam est benn yoon boobu rek la la dal ci biñ fi waaw mais loolu moom loolu moom du fi jóg moom parce que toujours ñu romb ñu fii jiital xar yow yoo xam boo leen xoolee da ngay dalee leer nit ñi xar yi ñu moomuñu ko mais boobu moment day fekk ay jigéen ñoo fiy nekk bu ñuy woote booy daw di ñëw it xam nga dañuy dàqante yow ci àll bi xam nga boo xoolee fii ni mu lëndamee mënoo fee topp ci àll bi di daw mhm. loolu la quoi naka sa wér ñu ngi lay faj. waaw mais depuis boobu léegi maa ngi faju parce que hôpital laa dem hôpital moom bala ñu laa bàyyi dañ lay bàyyi si condition yi leer. mais def na tey une semaine dimanche bi. waaw dimanche ba dimanche bi dellu si waat quoi. Mm-hmm. je m'appelle Yacine Ndiaye. Oui. Euh, comment vous vivez ces difficultés

qu'il nous aide vraiment parce que c'est pas tellement facile. Les femmes se réveillent à 6 heures du, mat du matin pour aller chercher de l'eau. C'est vraiment difficile. Il faut que les autorités nous aident. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un avait été agressé oui, j'ai entendu tout à l'heure qu'il n'y a pas longtemps, euh, je pense que ça fait, ça fait juste une semaine, qu'un taximan a été agressé. Il était parti à la boutique pour chercher quoi manger pour ses enfants et on l'a agressé avec un couteau. On, il disait que c'est un gars, mais il était accompagné d'autres, mais ils ont fui. Vraiment, c'est dommage pour ce quartier. Il faut que les autorités fassent une chose pour que l'insécurité s'arrête à ce quartier. Merci. Merci. Merci.